Malathione parfois man dama naan yow dangaa ngaa yabaate parce que franchement nag boo xoolee rappeurs yi surtout période bi ñu ne booy yi bëgg nañ seen bopp booy yi clip yu rafet la ñuy def booy lu nice la ñuy sol xam nga booy yi dañuy jox àq la ñuy def mais yow Malathione bu mënoo jël ndey ab 33 10 ne da nga ciy filmer sol benn t-shirt boo xam ne bii kool gi comme rond point bu nekk jaxaay mooy rond point bu mag boobu côté guy ga nga nga nga naan da wax quoi. mais yow mënoo ne da ngay critiquer booy critiquer war nga fexe ba yow bul la seetaanee duñu am benn critique ci lu le mais yow yow comme marché Sandaga booy def chronique comme marché Sandaga loola neex nga ba pare yow boole ci da ngaa yàkkamti yow balaa artiste bi wax sax nga génn melo melo yuut xaw teg il faut nga toog bu baax jël sa temps man ma la jox man trans très sincèrement man je te trouve pas mauvais franchement pour dire vrai man jàpp naa ne yow tey boo canaliser sa bopp am benn staff bu nekk derrière toi. mën nga def lu intéressant ci hip hop parce que skill bi mu ngi fii xam nga yenn gimmick yi mu ngi fi et mais yàkkamti moo la yàq ba pare loolu moom dama leen koy boole ñi nga xam ne ne ñooy chroniqueur yëpp dinaa ci ñëw mais Malathion dalal àndal ak dal nga fexee jox gars yi image de qualité parce que da ngay critiquer xolal ni ma mel clean comprendre mais yow t-shirt bi ngay sol. tiset bi bi comme comme comme comme rond point euh, fële nu mu tudd di jaxaay da affaire bi jël temps parce que aussi pour moi, du yéen yéen a war a njëkk wax yéen vous les chroniqueurs ñi dañ leen di déglu du dara bu rek parce que comme si yéen euh, les vues ngeen di topp vues